kon bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa ponk euh, bu mag a mag la ci euh, gëm ko bëgg ko it niñ koy defee mooy def ndigalam bàyyi tereem say jaamu yàlla nga tënk ko ci ay jaamu yàllaam loolu mooy topp li nga xam ne moom la indi moo tax dafa wax ci benn xadis boo xam ne Buxaari moo ko génne ba tey mu ne sama xeet wépp dañuy dugg àjjana ba mu des ku bañ di ne ko ah ndax am na kenn kuy bañ mu ne oho kay ku ma topp dugg àjjana waaye ku ma moy nag ku toppul ku ma toppul nee na kooku mooy ka bañ mooy ka lànk bañ dugg àjjana kon loolu lu mat a bàyyi xel la jeexit yi topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam effet yi nga xam ne moom lay am ci dundu doomu aadama kenn ku ne ci noonu su góorloo fexe ba pas-pasam mu tënk ko ci pas-pasu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay jaamu yàlla am noonu ay jikkoom noonu am na ay me meññeet yu mag a mag a mag yoo xam ne moom loolu da ko koy jariñ waaye su ko société bi defee it am na yi njëriñ yu mag a mag a mag yoo xam ne day dellu ci société bi bi njëkk ci liy jariñ nit ki nga xam ne tënk na boppam ci topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo di al istiqamatu ala siraati al mustaqim jub la koy njëkk a indil jub al istiqama nag mooy mooy sax ci yoonu njub nit ñi nga xam ne tënkuwul ci sunna dañuy làmbatu ku tënkuwul ci sunna ku ne da ngay làmbatu yoonu mucc nag doo ko gis ba noppi di làmbatu fu ma war a jëm moo tax al imam malik day wax ne as sunnatu safinatu nuux nee na sunna dafa mel ne gaalug yonent yàlla nuux ga ba mu dikkee ña ca nangoon a war ñoo mucc ña lankoon bañ a dugg ci gaal ga ñëpp dañoo làpp al malik nee na sunna noonu la mel borom bi tabaraka wa taala nee na afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahda am man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim nee na kii làmbatu jiital boppam rek di dem te xamut fu mu jëm boo ko comparé ki nga xam ne dañ koo xottil yoon wu jub mu jaar ca di dox ñaar ñooñu mu ne kan moo ci gën a jub la chaque ne ki ñu xottil aw yoon ba mu leer mu war caa jaar di dox kooku moo gën a jub te kooku moom ci topp yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari njariñ yim ko xam ne moom lay jariñ nit ki moo di li borom bi wax ne wa in tutiuhu tahtadu moo tax loolu mooy borom xam-xam yi dañuy wax ne tagg wi gën a rëy ci tagg wu borom bi tabaraka wa taala tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy loolu mooy lim ne wa in tutiuhu tahtadu su ngeen ko toppee da ngeen jub amma lam ko wax fale ne ko wa innaka la ala xuluqin azim yaa ngi yore jikko yu màgg loola aw tagg la waaye boo ko comparé ak wii nag wii moo gën a rëy ndax wii yëmatul ci jikko boppam moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye jikko yaa ngi ci biir jaamu yàlla yaa ngi ci biir melokaanu lépp a ngi ci biir su ngeen ko toppee daal jub kon daal kooku mooy modèle bi nga xam ne su ngeen ko toppee jub wa in tutiuhu tahtadoo kon yow jullit bi yow mi topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàpp ci sunnaam bokk na ci njariñ yi ngay jariñoo kon alhidayatu taamma mooy gindiku mucc mucc nga ci réer mucc nga ci jaaxle ndax lépp leer na ci sa kanam li la war rek mooy jàngal dund kooku topp ko nam doon def nga di ko def lam doon bàyyi nga di ko bàyyi ñetteel ba nag moo di al xurriyatu al xaqiqiya wal istiqlaalu saxiix topp sunna topp yonent bi sallallahu alayhi sallam bokk na ci njëriñ yim lay jëriñ mooy liberté bi lislaam nangu da koy am liberté bi lislaam nangu mooy mooy ban mooy kenn amatut sultaanub noteel ci sa jaamu amatu ko ci yow doomu aadama amatu ko ci yow ki ngay jaamu yaag doomu aadama yépp kenn ke muy suñ borom tabaraka wa taala ki ngay roy yaag jullit yépp kenn kee muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga liibar moo tax ku kawe kaag ku suufe kaag ka nit ñi jàpp ne daa kawe kañ jàpp ne daa suufe ka gën a kawe ci doomu aadama yi kañ jàpp ne moo ci gën a suufe boo ñëwee ci jàkka ji ñoom ñaar mën nañoo bokk benn sàppe di bu yàggul am na benn entraîneur football bu tuub ci Arabie Saoudite yaakaar naa ni matagul fukki fan benn équipe lay lay la yore foofa waxtu julli daa jot mu gis joueur yépp dajaloo ci terrain bi di julli mu xool ci benn joueur boo xam ne ku siiw la koo xam ne xam ngeen joueur yu siiw yéeg li ñu yor ci popularité nit ñi dañ leen di bëggee coow lu bari la nee na mu xool ci joueur boobu ak kenn ci ñi doon bale ci stade bi ñoom ñaar ñi bokk taxaw seeni tànk sësaloo ci biir julli gi ñu julli seen julli ba mu jeex kenn waxul dara dara yënguwut ak muy xalaat joueur boobu bu jaaree ci mbedd mi ni ku mbooloo mi toppee bi mel noonu mu ne daal kon lii diine la joo xam ne kon daa yemale ñëpp ah, il dafa yemale ñëpp kay ku ñuul ak ku weex ak ku xonq ak ku wert ka kañ ne kawe naag kañ ne suufe naag suñ xasee summi seen dàll yi ca bunt jàkka ja summi waale nañ seen daraja ya foofa dugg ci biir suñ jullee ba noppi suñ génnee nag bu ñu solaat seeni daal nag ku ne solaale sa daraja ñu génn nag kenn ku ne léegi ñuy dem maay ministère bi kii ne man maay léegi kii ne nangam kii ne man balekat laa waaye bu waxtu summi daal yi rek jotee yi ñëpp summi seen daal kon diine ju mel noonu liberté boobu li koy joxe sunna rek moo ko man mais lu dul loolu jeneen doomu aadama dana ñëw jaare la ci loo xam ne dana fexe ba doon leneen ci sa kaw mën naa dem sax ba yàlla faf sa kaw yàlla yeyoo woon mu faf yeyoo ko ci sa kaw tàggat la nga di ko xëyal di ko gontal fof bàyyi jaamu yàlla nag fa loolu lépp mën naa am nit ñi sax ñu ngi ci teg seen i kon liberté bi nga xam ne moom la sharia joxe muy liberté wakkiirlu ci sa borom wóolu sa borom di jaamu sa borom moom dong di ko wéetal moom dong bépp sultaan bu mu mën a doon sultaanu taaxóot ak bu mu mën a doon bu jóge ci doomu aadama bu ñëwee bëgg a ci sa kaw nga lànk ko loolu diine ji ko man mooy diine lislaam te li ko mën ci biir diine lislaam ji mooy topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi maanaa tënku ci sunna mat ko borom bi tabaraka wa taala ne daraba lahu masalan rajulan fihi shurakaau mutashakisuuna wa rajulan salaman lirajul hal يستويان مثلا الحمد bal بل la لا borom bi nee na yàlla ngi joxe misaal exemple ci benn waay boo xam ne ab jaam la ñu bari bokk ko moom ko ak benn waay boo xam ne kenn rek kay ab sangam maanaam benn jaam boo xam ne kenn ko moom kee nga xam ne lu mat ñett ñett ko moom ñoo ko bokk wala ñeent wala juróom bu ñu xëyee kii ne ko ci nangam laa la yónni kee ne ko ci nangam kii ne ko ci nangam kii ne ko ci nangam mu nekk seen diggante du xam fan lay tàmbale ak fan lay yem kan lay njëkk a topp kan lay mujj a topp mu ne kooku ndax moo ëpp jàmm wala ki nga xam ne kenn rek ko yilif bu xëyee ne ko demal defali ma nangam mu dem defi ko bu wàcc jotee mu wàcc ñëw toog ku yorum xel xel ku nekk xam nga ne ki kenn di sant muy defi kooku moo ëpp jàmm koo xam ne fukk wala juróom ñooy xëy di ko sant mu bëgg leena a fajal seeni aajo ñoom ñëpp misaal moomu borom bi tabaraka wa taala mi ngi ko joxe misaalum kuy jaamu yàlla moom dong wéetal ko ak koo xam ne wéetalut yàlla waaye ak jaamoom nit ña dañ koo séddoo kenn ku nekk am ci moom cër boo xam ne mënu koo bañ a def su ko defee kooka day sonn boole ko ak di mooy yàlla kii la noppalu boole ko ak di topp yàlla kon ñoom ñaar méngoowuñ ñeenteelu tomb bi nga xam ne jullit bi topp yonent bi dana ko jariñu moo di nag texe nag ci tabbi àjjana mucc ci sawara te loolu nun ñëpp kat moonu taxam di kër kër yi la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon eh, ba arab yi ba muy paysan ba kaw kaw ba ba mu dikkee ne ko man de li ma dégg ngeen di di ko wax yaag muwaas bu ngeen jullee ba sëlmal yu bari yi ngeen di wax rek di doom doomi man loolu maa mokkal lépp man daal dama naan yàlla may ma àjjana rek musul ma ci sawara yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko xawlaha nu dandin sun doom doom jooju ngay dégg yëpp génnul ñaar yooyu ñaar yooyu muy may ma àjjana musul ma ci sawara mu ne ko laa axsinu dan danataka wa dan danata muwaas sa doom doom ji rek doom doomi muwaas mokkalu ma ko xam nga ñi jóge ci kaw ga moom seen i mbir nam leen teewe ci seenum xol rek noonu lañ koy waxe amuñu amuñu amuñu ay tappale li ñuy tuddee diplomatie ci jamono ji xam ne mooy ay tappale loolu amuñu ko leen ne nam nam nikkee ci ñoom rek noonu lañ koy wax ñu ko daal li ngay wax yaag moas mënuñu ko loolu dafa bari mu ne ko looy wax nag mu ne damay wax yàlla may ma àjjana te musal ma ci sawara mu ne ko xawlahaanu dandin sun doom doom ji génnut loolu borom bi tabaraka wa taala kenn ku xam na ne kon am àjjana ak mucc ci sawara moo waral kër kër yëpp li ñuy def lépp موتاخ بروم بي ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما نانا كو توب يالا كو يوننتم دا نكو دوجال اي اجينا يو خامن ديخ ياك ري يول سي سوف نانا كو وون غناو نك توب يالا كو يوننتم يعذبه عذابا اليما نانا دا نكو مبوغل مبوغل مو متي كون jaamu yàlla bi ngir nga mën a mucc ci mbugal mu metti moom yi te am àjjana jooji dex ya di daw ca suufam toppal yàllaa kum yonentam jéemale jàng ba xam sunna nga topp ci kon loolu mooy lenn ci njariñ yi nga xam ne topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana ko jëriñ jullit bi société bi nag moom it am na ay njariñ yoo xam ne su société bi àndee nekk société bi sunna maanaam di ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na njariñ yuy delsi ci société bi ba ca jëkk mooy quwatu tamaasuk wa mataanatu taraabuti wal waxda seenu jàppaloo day dëgër su fekkee ñoo bokk benn luñ jàpp muy roy yonente bi sallallahu alayhi wa te it dañuy bennoo ci biir loolu su loola amul nag dañuy tàqalikoo ndax royukaay ngir nit ñi doon benn faaw seen royukaay doon benn loolu julli di faaw ñu daje ñoom ci seen bopp waxtaan nag seen waxtaanu biir kër koo xam ne yoonu kenn nekku ci ne gaa yi kaay leen nu waxtaan nag sun bàyyi ñoom ak sun maam ñoom kat dañoo ñëwoon doon ji góor góorgóorlu doon tasaare diine ji sun demee ba jëmmi jamono ma taxaw di woote jëmi ci saa kër baay kee taxaw woote jëmi ci kër baayam kee woote jëmi ci kër baayam te kenn ku nekk am kër baay te ku sañoon ku nekk sa kër baay mooy kawe yi ci def topp ko suñ sun delsee nag ba ak agsiwaat foofu la muy jur mooy sunna danañ ko teg fee loolu mooy li te suñ ko tegee fële royatun yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li muy jur mooy ay pàcc-pàcc kenn ku nekk ne diine ji fii dong la nekk nekkul feneen jamono yoo xamee ne dem nañ nag ba yëg ne lii lu nekk njuumte la ndax doye di nan suufe nan tàqalikoo nan kenn ku ne yaa ngi wax ci sa moroom lu jaaduwut nu bëgg a delluwaat fenn dong la mën a dellu mu benn leen mënumaa taxaw ne leen kaay leen saa kër bàyyi ndax mu benn lenu wala may wuy ji bàyyi keneen ne ko danoo benn moo tax nu ñëw sa kër bàyyi loolu kenn ko nangu waaye nag ka yàlla yebaloon mu ñëw saxaaba ya toppoon ko sa baay toppoon ko sa maam sa baay sa maam toppoon ko kooka nan dellu ci moom ndax nu bennoo nu nuy delloo ci moom nan jàng lam fa indi woon xam ko jëfandikoo ko suñ ko defee benn la ñuy doon du jar sax nuy dajaloo naan kaay leen nu bennoo dañuy jekki-jekki rek doon benn su ma dajeeg yow la nga gëm moom laa gëm sooy julli na ngay jullee noonu laay jullee soo toogee di waxtaan la ngay wax laay wax la ngay wattandiku laay wattandiku sa jikko mooy sama jikko kooku jaratul nu nu naan kaay leen ñu def benn séminaire ndax nu mën a bennoo jeex na bennoo na te kat looloo ngi fi matière bi ci boppam mi ngi fi alxuraan jaa ngi fi sunna saa ngi fi réer doo nga fi nekk nag ak ñàkk a topp ak topp bànneex ak àdduna waaye su fekkee yooyu yëpp muy bànneex yeeg àdduna yeeg intérêt yëpp teg nañ ko fële del si ubbi école yi jàngale ci alxuraan ak sunna ñetti at ñeenti juróom xeetu Sénégal doon ñenn bokk luñ gëm bokk luñ nekk seen kàttan jël siwaat feebar bi nag du feebaru Sénégal waaye feebaru adduna la foo dem fu ne am na gàllankoor yoo xam ne ñoo dox diggante nit ñi ak bennoo bennoo googee nag mënta am ci jullit lu dul dañoo dellusi ci alxuraan ak sunna mooy saafara si fi nekk tasaaroot feebar la feebar bi benn garab la am mooy dellusi ci alxuraan ak sunna suñ ko jëfandikoo wér suñ ko jëfandikoo duñ wér mu jeex moo tax borom bi tabaraka wa taala wax ne fa in amano bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaaq nee na suñ gëmee jullit yi ñëw gëllëg suñ gëmee ngëm gu mel ne ngëm gi saxaaba yi gëm ñi nga xam ne yonent bi jàngal na leen ba yar leen ba noppi ci ñoom ñii ñëw ëllëg suñ gëmee lu mel ni lii ñu gëm nee na kon ñoom ñépp dañuy ànd doon ñu gindiku maanaam ñooy bokk luñ nekk mu ne wa in tawallaw su fekkee dañoo won gannaaw loolu nag fa innama hum fi shiqaaq nee na ci ŋaayoo ci la ñuy dund ci la ñuy dee ci ŋaayoo la ñuy dund ci la ñuy dee yàlla nañu yàlla musal ci loolu kon tomb bu njëkk bi ci société bi gën a jariñu tomb bu bi société bi jëkk a jariñoo ci roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak dellu ci sunna moo di bennoo ñaareel ba moo di ishaatul amnil am pour ñu am sécurité ci seen lépp del si ci alxuraan ak sunna moo ko mën maanaam yar leen ci kenn ku ne xam na ne ñàkk sécurité bi mu ngi ci réew mi tasaaroo fenn fu nekk nit ñaa ngay naan bu guddee làmp yi fay bu guddee nangam nangam loolu lépp nit ñi dañ leen a yarul yarub diine kii ñu yar yarub diine ñàkk du tax mu dem sàcc ñàkk du tax mu agressé nit ñàkk du tax mu lor doomu aadama ñàkk du tax mu lekk alalu jàmbur kooku gëm na ne alali àdduna borom bi moo koy séddale te dafa am fu ko teg kooku boroom jom la kooku day liggéey kooku day tasaare yiw kooku day tasaare mbaax doonte sax day xëy di tasaare mbaax googu te bàyyiwut ci këram loo xam ne bu ñëwee moom lay añee askan wu mel noonu suñ ko soxlaa bëgg a gindiku bëgg suñ sécurité tasaaroo fenn fu ne mu àgg fa jàngal nit ñi alxuraan ak sunna moo ko man leneen nag mënu ko moo tax borom bi ne alladina aamanu wa lam yalbisu imaanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ñi gëm yàlla boole ko seen ngëm yàlla googu jaxasewuñ ko ak dara amul bokkaale boole ko roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñooñu ñoo am sécurité fii ci àdduna ñooñu ñoo gindiku gindiku boo xam ne moo leen di jëriñ ëllëg ci àllaaxira léegi nag lii ma leen wax du sama wax de waxu sama borom la fa in tawallaw suñu dëddoo su ngeen dawee wan ma ginnaaw bañ li ma waxoon ah man dañ maa yónni rek man daal li am mooy faqad ci dëgg-dëgg ablagtukum jottali naa leen ablagtukum allahu akbar allahumma hal ballagtu fashhad ya rab xoola mu yonent yëpp bokk kàddu kii dégg ngeen li mu wax faqad ablagtukum jottali naa leen maa ursiltu bihi ilaykum li ñu ma yónni jottali naa leen ko de yonent bi loolu la waxoon sahaaba yi jottali naa ñu ne ko jottali nga kon huud nee na aw nitam la ma yàlla waxoon def naa ko يوم القيام بني دجي من جاكو ما جاك لهما يالا جوخنا ما ميسيون اندي ناكو كين تي يين اماتول لاي لول نك كو سنة لير تي ياو nga dem fenen amo lay de bu yabo shabab yi ngeen bayyi lolou xel ku jël يوم القيام دا سن والله الذي لا اله غيره سنة كن سوسوكو كودول محمد رسول الله لغي نك نيت ني بونو بوغي بان سنة دانيو سونال سين باب sunna mom leer rek ca kanam tànk kanam la am du arrière kanam rek la gëm ci xani ño am tànk ginnaw côté bu ne nag danañ ko jëm waye sunna mom ca kanam ca kaw tak jolli insha allah sunna day ñëw di das xol yi di das xel yi da lay libéré da lay libéré tënk gi ñu la tankon ci jahiliyatul ula di lek li nga yara ci ay naxte mënuñu ko justifier bu sunna leeree kenn dootu ko am waaw loolu nag bu commencé leer ci bopp yi kenn du bëgg waaw ki doon noos ci yow boo demee ba nu ko hé maa ngi yow a yem waaw waaw eh jox ma ma yóbbu la àjjana nga <laughs> waaye sëñ bi yow xaa da nelaw yow it nag ah, waaye àjjana nag dëgg dëgg nag yii daa yomb nag dëgg dëgg ko ah, kon kon yow kii nga loolu ah, baax na yow yow nga kii nga ah noonu la parce doo ko bëgg nag dëgg dëgg ku la xañ teraanga mënoo ko bëgg ndax da jàpp ne li ngay teddee xam nga toog rek defoo daara ñu di la jox ngay tedd gën fee jekk ëpp la fi sunna day ñëw leeral la mbir yi ne la xolal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo fi gëna tedd te amul woon xaalis musul denc dépense ñaari fan waaw te ko wax mom ngay tudd yonent bi da doon leb dépense sallallahu alayhi wa sallam bi muy gaañu avant muy gaañu amé won na bor bi mu gaañoo tayle na yirim ngir dépense kërëm tayle xam ngeen tayle xolal tayle yirim yowut pour am dépense kërëm yonent bi tayle nako su ne won jox leen mo duñ ko jox mais xam na ni jox leen ma fan la koy tek يونت دو ليك ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل يونت بي نيمو ليك علال مو تيغول فن نيمو لا واخ جوخما نيمو كو واخ باسكو خمنا ني يالا سانت كوكو كون نينا بولين ليك سين علال تي ناخ ليغي نغا بوغ توك نين ني لاي جوخ غاي تيند ني لاي ديفال سي بير غاي تيند غا توك تي تيرانغا لولو ريك دو بوغ سنة ناخ سنة داي نيو دام سيس بي دالا ناني ياك نيوما يم كيت موم دال نغنيل لي نيكول تي ياو خمغا فمو نيك اتقاكم soolin gëné ragal yàlla nga jitu suñ la gënee ragal yàlla jitu waye tok ci man la ci man la ci man la rek loolu motax bokk yi gaay nak mënu ñoo bëgg sunna ndax sunna da leena sonal mënuñ ko bëgg yàlla borom bi tabaraka wa taala dafa waxoon ci alquran قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين يا مونيكو يو محمد مانام يو يوننتي بي وخال لا يوننتي بي دي خاتوي خيت وي خيت وي رسول الله جلتني لا يوننتي بي دي وخال يالا نيكو واخ in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni mu ni yéen xeet wi yéen xeet wi su fekkee da ngay a bëgg yàlla su fekkee da ngay na bëgg yàlla fattabi'uuni na ngeen ma topp man kan ngeen di topp rasulullah kan ngeen topp rasulullahi lañu topp ah léegi bu ñu ko toppe nag mu ne yuxbibukum allahu yàlla dina leen bëggal boppam suñu toppee rasulullah yàlla bëggal ñu boppam foofu la yem déedéet mu ni wa yaxfir lakum dunubakum ba noppi nag yàlla dina leen baal seeni bàkkaar mu ni wallahu gafurun rahim ndax yàlla mooy jéggalekat bi te mooy yërëmekat bi mbokkum jullit bi topp rasulullahi naka lañ koy defee ah topp rasulullahi de mooy lépp loo xam ne rasulullahi doon na ko def te daan ko digle na nga góorgóorlu ba nekk ca di ko def ta nañu la ca fekk bul setantal dara ci loo xam ni yonent bi ko doon def te yow nga bañ koo def lépp lu doon def ak di ko digle yow fexeel ba nekk ca te sax ca bari na nag ci ñun ñoo xam ni jàpp nañ ni bëgg yonent bi mooy fu ñu tuddee aw turam rek nga yëkkati alal joxe ca wala fu ñu tuddee turam rek nga daanu wala fu tuddee turam rek nga ni eskay wala fu ñu tuddee turam rek nga fottasu lii ma wax lépp baax na am na solo lool waaye li ko ëpp solo mooy jéem a gëstu jikko yonent bi jéem a gëstu nan la yonent bi meloon ak nu mu doon jëflantee ak nit ñi la ka la doon jàngale ma fexe nag taxaw ca loola fexe nekk ca loola fexe góorlu ci ba kenn duma ca man ba noppi nag ma fexe nekk avocat rasulullah fépp fu ma déggee ñu koy tuutal ma fexe ba xamal leen ni kii ngeen di wax du ko tuut ku mag la kii ngeen di wax du ko ndaw ku ñu war a fonk la ku ñu war a topp la ku ñu war a dégg ay ndigalam la ku ñu war a bëgg la ndax moo waxoon ni kenn ci yéen du gëm yàlla lu dul daf may bëgg ma gënal ko nit ñi ñépp gënal ko ndeyam gënal ko baayam gënal ko moom ci boppam kon ñun ndeke bala ñu gëm yàlla dëgg faaw ñu bëgg rasulullahi ba rasulullahi gënal ñu lépp lu am ci àdduna mbokkum jullit bi mbokk lii suñu ko defee yàlla dinañu bëgg moom yàlla dinañu bëgg ba noppi dina ñuy jéggal sunuy bàkkaar xoolal li yàlla teg ci aaya bi def ni qul atiu allaha mu ni ko waxaat leen ni leen nañu topp yàlla nañu topp yonent bi allahu nañu topp yàlla nañu topp rasulullah topp yàlla mooy lan ñu jéem a jàng ñun ñépp ñu jàngiwaat xool lañu yàlla digal ñu nekk ca xool lan lañu yàlla tere ñu daw ko te bàyyi ko ah, yàlla nag daf caa teg ab tëkku bu rëy mu fa in tawallaw fa in tawallaw su fekkee da ngeen a lànk topp leen yàlla topp leen rasulullah wala boog rasulullah lim digle lépp lii laay def bàyyi lële te bari na ci ñun de mbokk yi wallahi bari na ci ñun am na ñoo xam ne dañuy xool li leen arrangé ci ndigali rasulullah ñu def ko la leen ci arrangé wul ñu bàyyi su ko defee nag jéem ko utal ay lay teg fa ñooñu la ñuy wooye sopp daganal su ma soppee lii rek def ko su ma ko soppul du ma ko def ba pare nag teg ca loo xam ni dana tax nit ñi duñ ko def wala duñ ma ca saboote waaye li yonent bi digle lépp laay def du ma ci bàyyi dara du ma ci bàyyi dara lépp laay def yàlla nag mu ni su ngeen lànkee def lii bàyyi lii walla bañ def dara nee na ah fa inna allaha ni ki yàlla nee suñ bañee suñ bañee topp yàlla bañ laa topp yow rasulullah nee leen yàlla day laa yuhibbul kafirin yàlla du bëgg mukk yéefar bi yàlla du bëgg mukk aji wedd ji kan mooy aji wedd ji mooy ki nga xam ni wér na ko ni rasulullahi moo wax lii nga lànk ba ko fa def leneen ki ko wér ni ko yàlla sunu borom moo digle lii nga ba ko fa def leneen masalan yàlla moo tere njaalo yow mi làqatu di njaalo bàyyil xel ni sunu borom moo la ko tere te mi ngi lay ak foo mën a nekk te ëllëg di ngeen daje sunu borom moo ñu digal julli naay julli naa julli góor góorlu ba su tëdd naa bàyyi xel ni war na maa jóg julli fajar ndax sunu borom moo ma ko digal moo wax ci alquran ni inna salaata kaanat ala almuminina kitaaba mawquuta mbokk jullit bi nañu leen yee salaat sunu bopp xool ni ñu bëggee rasulullah xool ni ñu toppee rasulullah fexe nag jéem a gëstu ji waat ak dundam comme ni ñu gëstoo yeneen mbir yi ñu gëstu ji kan moo nekkoon sunu yonent kan mooy ki nga xam ni yàlla moo ko yebaloon ci xeet wi mooy kii nii la meloon nii la daan jëflantee ma jéem a lu mel ni moom daan def lim daan def daan def lim ma daan digal te bàyyi li ma doon tere mbokk jullit bi yal na nu yàlla jéggal sunuy bàkkaar nangul ñu sunuy jaamu yàlla تخير نيو تي باخ يال نيو يالا بغ لو رسول الله تا يالا سخال نيو تي صراط المستقيم السلام عليكم ورحمه الله